بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بخير وقف أو إدغام بخير مدغم أو إظهار بخير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبسارة واللمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وقائدنا وسائخنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة وعصمنا به من الزيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية قدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يوم النبي بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون يوم النبي ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Yeah, we have... ka jéggulu kàddu gu kawe gi te du suñ coobare ndigal rekk ko teg di leen jotal ay kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ni moom la sëriñ bi joxoon ndigal mu jox taalibe yi ndigal ñu jagleel bis bi bis bu alxuraan te ñu defe ko ni mu ko bëggee woon wax na ne mu ngi sant booloo mépp moom sëriñ Muntaxa ginnaaw bi mu jottale digal li nga xam ne moom la ko sëriñ bi joxoon ci ñu teewlu tuub jëm ci yàlla jàng alxuraan lu mu gën a baree jéggalu yàlla nu mu gën a bare ñu defe ko nam nam ñu ko digale woon mu ngi sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba di sant sëriñ bi nga xam ne moo na ko digal mu sëriñ Sidi Muxtaar te bëggal nu lu baax bëggal lu jàmm bëggal lu salaam bëggal na ak mucc tax mu digal nu ko te lépp a ngi ci itam ndax sëriñ bi wax na ni boo gisee sëriñ bi duñu ko digal mooy sëriñ Tuubaa dafa amul lu dul ñaar ginnaaw bu mu wéetale yàlla yonent bi sallallahu alayhi sallam la am ak alquran ñaar it moom mooy yi nga xam ne moom la nit ñi bëgg te duñ dañ di ko bëgg mooy lu lu lu ñu ragal ñu bëgg mu sori leen wala luñ bëgg mu bëgg mu jege leen moy dafu ak yalbu ñaar yoy nak sëñ Muntaxa nee na bi dafa xamni ci ñaar rek la ko sëñ tuba daan wute muy khidmatu nabi ak jàng alquran rajawna min almawla mawla bihi xayra matlabin wa fas bihi fi kulli dafin wa fi jalbi moy alquran dafi wajil bi khidmatul hadi amin muy qasida yi lolu motax saabu jamono tàngee nee na saabu jamono mettee saabu bëgg-bëgg yi bare mu moom sëriñ bi mu delloo nit ñi ci yàlla jàngaloo leen alxuraan jàngaloo leen xasida ndax xasida yi weesuwul am daax yi ak salawaat yi te lépp mooy ci la sëñ bi di jiñee ci la sëñ bi di ñoddee alxuraan itam ci lay jiñee ci lay ñoddee ni ñu ko waxee ci bayit yooyu jëruñu di ñu di ca delluwaat kon nag wax na ne mi ngi sant ñëpp di sant nag ñi nga xam ni ñoom la bokkaloon liggéey bi muy ñi nga xam ñoo féeti ci jumaa ji la ko dale ci ilimaan yi ak noddukat yi ak ñi yor bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daaree kaamil ak ñi nga xam ne ñoo waa Muxaddamatul Xidma di liggéey liggéey liggéey la jumaa ji ñëpp mi ngi leen sant di leen gërëm di gërëm itam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka yi ci Tuubaa ak jumaa yi ndax fenn fu ne wër nañ fa ci ci ci ci ci yoor yoor bi waaye foo dem ni jumaa ji mel rek la mel fees dell ni ñu jàng alxuraan ak xasaayid di ko def addi Sëriñ Tuubaa di di ci jëñ di ci ñot bi kon nag nee na mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant it mboolem jàkka yi ci réew mi ndax wax na ni sëñ bi dafa matale woon woote bi wax ni yëmalu ko ci taalib bi mu di ci rek waaye taalib bi mboolem ku ku jullit te nekk ci réew mi wala nga nekk ci àdduna si sàkku na ci yow bisub tey bi nga def ko bisub alxuraan ñaan suñu borom defal nu jàmm def jàmm ci réew mi def jàmm ci àdduna si sotti fi ay xéewal ba mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell mën a liggéeyal sëñ bi liggéey bu sell nee na kon mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp di ñaan ñu teewe ko ay at yu baree baree bari di ñaan nag ñu xaasal jëmm ji nga xam ni moo ko digaloon mu joxe ko muy sëriñ bii fi nekk te ne aw nekk dama rafet lool wax ne nañ bokk teewlu ñaanal ko ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom lañu nekk fi wetam ak ñu baaxam ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu ñaan ko sa yàggal ko fi te ko ñaanal fi yàggal fi njabootu sëriñ Tuubaa gi te wéral leen ñaanal fi mboolem kilifa diine yi nga xam ñoo ngànk diine ci ci ci ci lislaam ci Sénégal ak ci bitim réew sama borom jàppal leen ba fu ñu bëgg yóbbu lislaam yóbbu ko fa kàddu yooyu la sëñ boo xam nañ ko jottali ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu